damu amul njariñ ba tey war na ma kon ma jàll ci nettali gis-gisi gis borom bi ak i peeñu xam naa taalibeeb kirist boo xam ne yëkkati nañu ko ba ca asamaan si gën a kawe boobu ak léegi mën na fukki at ak ñeent xamuma ndax ànd na ak jëmmam walla déet yàlla rekk a xam xam naa ni nit kooku yëkkati nañu ko ba fa yàlla nekk bu dee ci jëmmam mbaa ci xelam xawma yàlla xam mu dégg fa baat yu ñu mënula nettali te yu ñu mayul doomu aadama mu ŋaaŋ ko dinaa damu ci nit ku mel noonu waaye duma damu ci sama bopp lu dul li wone sama néew doole du doon yëfi dof ndaxte dëgg laay wax waaye damay moytoo damu ngir kenn baña foog ci man lu weesu li mu gis may def te muy dégg ma di ko wax tey it ngir ma bañ a yëg sama bopp ndax peeñ yooyu wees xel mayees na mbir dal ma ci sama yaram di ma mitital ni dég muy malaakam seytaane mu may sonal ngir ma bañ a sama bopp ñaan naa borom bi ñetti yoon ci mbir moomu ngir mu taqale ma ak moom waaye mu ne ma sama yiw doy na la sama kàttan ngi mate ci néew doole kon nag dëgg-dëgg gën na ma bég ci damu ndax sama néew doole ngir kàttanu kirist dëkk ci man looloo tax may bég ci néew doole yi may wéye ngir turu kirist ci tiis ci njàqare mbaa ñu saaga ma mbaa ñu fitnaal ma ndaxte bu ma neewee doole booba laay am kàttan ci dëgg-dëgg wax naa waxi dof te yéena ma ci dugal fekk yeen ci seen bopp sax yéena ma waroon a sargal ndaxte su ma dul dara sax seen ndaw yooyu ngeen naw ëppalewuñu ma dara yi jaloore yi ak jëf yu màgg yiy firndeel ndawul kirist feeñ nañu ci seen biir ma ànd ci ak muñ gu mat lan laa defal yeneen mboolooy ñi gëm te defaluma leen ko xanaa rekk li ma wéeru ci ñoom te wéeruwuma ci yéen baal leen ma googu tooñ maa ngi leen di waaj a gane si ñetteel bi yoon te duma wéeru ci yéen wutsiwuma seen alal yéen laa soxla ndaxte du gune moo wara yor waajuram waaye waajur moo wara yor gune yi man nag nangu naa joxe li ma am lépp ak xol bu sedd ba joxe sama bopp sax ngir dimbali leen ginnaaw bëgg naa leen nii xanaa kay seen mbëggeel ci man warula wàññeeku kon noonu la nekkuma woon yen ci yéen waaye mën na am ñu naan dama leen a nax ba réeral leen ci sama njublaŋ mbaa du dama lekk seen alal jaare ko ci kenn ci ñi ma yónni woon sant naa tiit mu ñëw ci yéen te yebal naa sunu mbokk moomu ak moom ndax tiit dafa lekk seen alal man ak moom ndax bokkunu woon xel mu munu yëkkati ak tànk yu nuy dox xanaa diirub li ngeen di jàng lii defe ngeen ne nu ngi wut aw lay ci seen kanam samay xarit nu ngi leen di wax ci kanamu yàlla ak ci turu kirist te lépp ngir seen njariñ la ragal naa bu ma ñëwee ci yéen fekk leen nu ma neexul te yéen it ngeen fekk ma nu leen neexul ragal naa fekk ay xuloo ci seen biir ak ñeetaane xadar ak diiroo mbagg xas ak jëw réeréelu ak yëngu yëngu ragal naa bu ma leen ganesiwaatee yàlla sama boroom suufeel ma ci seen biir ma naqarlu ci ñu bari ñu bàkkaaroon te dëdduwuñu seen yàqute seen njaaloo ak seen ñaawteef gi ñu doon def